Ah. Okay. Nam tak fo Ah. Good. Fala fala abuji eh? Ha ah, please. Okay. Now just No, now just tomorrow bro. ¿Ah? Now just tomorrow. Tomorrow eh, kan mana so this is problem ah okay so mbele jam makle amul ah wa kay wa kay wala be be be pare ana ni bala nga nga jël sa bopp dañ ko dog weñ dañu dog dañ ko dóor muy nota waaye non suñu suñu doore duñ doore weñ bi de dañu doore taal bi ak bloc ci suuf on a sanga soo suyee da nga yaa ngi am ay boole si kaw. waaw xamal obscure ko. waaw maa ngi ñëw dégg nga léegi ñu bu ñu lay bàyyi nga jëlee ko sa bopp su dee da ngaa jël assurance ne da ngaa clear everything branche ko su dee da ngaa jël assurance boobu ñu bàyyi la ko defal sa bopp su dee mënuñu koo jël tamit ñu ñu jëndee ko suñu bopp. mën naa ko defal sa bopp. da nga def sa bopp. yow am na récolte. ok thank you. naa ko defal sa bopp. ok. Ah. yooyu ñu ngi ay nii ne pour ñu def façon business si kaw yoon bi nii ah so léegi a ngaa try gaa oo gaa yi ñu gas leen génne leen fii di ko ah. suba dégg nga ñu ne si kaw yoon bi waru fii nekk dem na uti place bu dugg ma foofu suba si mu ñëwaat ñu fekk ko fii dinañ ko yàq atin daf a clear ah aha wax ko ne gaa ñu ne su ñu ñëwaatee élève fekk ko fii dinañ ko yàq aha so ɓe alolu noon ñew jele ko fii yaafine ka jele ko fii yaw ɗum mbawi yon bi yaw gurɓe gene léegi nga gis ko nga xam ne ngay ñëw di def photo si kaw yoon bi donc ñu laa ñu laa ñaan nga taa def loolu tey suba si ñu ñëwaatee fekk ko fii donc yaa da nga ko jëlee suñu maa ngi xool borom man moom boobu. kon ko nga ko ne tas ko ñëwee fii de ñu ne lii si nga fekkee fii rek dañ ko ñëw def ok xam nga kamera moom mbaal bi yéen ñuy taayee jëlee ko dégg nga ah waaw mbaal bi nga wuli kafe na mu jëlee ko ah waaw defal loolu tey balaa suba su ñu su ñu ñëw ñu fekk ko fi ne ko yaa suñu bopp de ah wax ci kóomu waaw ni ni ni jëlee fi mu ko si dégg nga bi mu jëlee fi mu clear complètement Vamos. yes. No, but like you should you should be informing him. You are informing me. Mm. Okay, that's, that's fine. It's part of the road reserve. Okay, sir. Yes. All right. Sir. So uh, we can do the, the, the necessary engagements. Okay. So next, so yes. You're welcome, sir. So this is how it is. Okay. So uh, as our uh, mandate is. Yes we're going to prove part of the, the veranda here to indicate that it is part of the, the, the room. Because failing of which, which means we are not doing what what is on, on us. You are welcome, sir. Thank you very much. You are welcome. Um, is Yes. Ah, the girls are here. Hello. Okay. What he's saying is, is very important because he says we have some detainees inside here. When we started hitting the, the, the building, that can be, uh, they, can be, uh, can be discomfort on, on, in, in that, and it can be uh, some form of how they call it again, um, panic. You understand from their side because you're gonna be under the roof or a building. They are looking for part of it. They don't know the strength of the structure, mm -hmm. but we are telling you that we only give 24 hours to remedy the situation consult the, the, necessary authorities, the authorities responsible, that they should consult us to know what we can do. Okay, sir. I will, I will, I will, I will, no, from the first line here, everything has to do. The whole of this building is on the road, sir. The whole of the building? The whole of the building. Okay, I will inform the commander. Just, just mark it down. Just make a mark on it. Let me know.